bëgg nañu yokk njëgu mburu bi li nu mel nag gérant bi àndu si. yokk moom ànduma ci moom waaw man moom ànduma ci yokk farine yokk mburu bi. courant bi essence bi dafa cher bu njëkk da doon dugal 5000 liggéey ci journée nga am ci tuuti weccet sax bëriwul woon mais léegi da ngay def 10 te doo ci am dara employé li nga leen di fay ku ci nekk bu fekkee li état bi wax moom nga leen di fay doo ci génn. ci contexte boo xamante ne dund gi dafa cher ci ñëpp war nañ xoolaat mbir mi. mais li ma ci naqarlu mooy kilo bi duñ ko respecté ni muy toll boo yëkkatee mburu meeg li nga koy jëndee dafay ndaw euh, pour nga dagg euh, mburu mi sax séddale ko say doom day doon problème donc yokk nañ yàggul dara ñu bëgg xëy bëgg ko yokkaat nañuy xalaat ki nga xam ne day xëy chaque jour di wuti ji am lu mu def ci poosam pour dundal ay njaboot. boulanger yi ak état bi war nañ toog waxtaan ngir trouver ay solution adaptée waa ñoom nañ toog discuter ak état bi bu ñu waxtaan ak état bi état bi kay yokku loxoom ñoom ñu lokku comme état am lu mu bàyyi ñoom ñu am lu ñu bàyyi ci wàllu électricité ci wàllu leneen mais bu dee dañoo par exemple ñu ni ñoom nañ ko kii euh, nañ ko yokk baguette bi jar trois cent vingt cinq trois cent vingt cinq nan la ko population bi mën a jëndee. seeraay courant bi daal dina provoqué ay jafe-jafe ci boulanger yi. seen charge daal di multiplier wu looloo waral ñoom nag ñu fas yéene yokku prix mburu bi ngir ñu gën ci gis seen bopp